Adama ah, Mbengue maa ngi lay nuyu. ñoo lay fay soxna si Awa. ngay njiitu ONG action droits humains ak amitié di ADHA euh, tey jile nag ñuy màggal bés bi nga xamante ne moo jëm ci xeex lépp lu exploitation sexuelle maanaam ñenn ñi sàkku te loolee tamit faral di yi ak yelefu doomu aadama yi nan nga jàngatee euh, lu ni mel. waaw tey dafa doon bés bu nga xamante dañuy màggal lii di. Euh, journée euh, bu nga xamante ne ñu ngi koy exploitation sexuelle kon ñu ko waxee léegi mu nekk bés bu nga xamante ni non seulement dafay tax ñu gën a dénoncer lu nga xamante ni mooy victime nga xamante ni ñooñu ci biir loolu mais lu weesu loolu xoolaat nan la ñuy taxawatee wala taxawaay bu nga xamante ni war nañ ko am muy kuréel yëpp muy tamit euh, les états parce que nekkul rek benn question boo xamante ni si benn dëkk rek lay xewee si monde bi yëpp lay xewee. maanaam nekk na bés boo xamante ni si màggal boobu noonu dañ siy xool na lañu ñuy def pour mun a barrer route les trafiquants yi nga xamante ni ñoom ñooy ñëw jéema a euh, sàkku lii di euh, ñi nga xamante ni ñoom ñooy victime yi. Mm-hmm. ndaxte euh, bëri na tamit fi muy xewee ba ci fii ci Sénégal rawatina sax ci banlieue bi. waaw d'abord bu ma ñëwee si ay chiffres rek yi nga xamante ni moom moo am. si euh, monde bi dañoo wax ni que vingt cinq pour cent yi nga xamante ne moo si bu ñuy wax si victime de traite si euh, dë si àdduna bi yëpp ñooñu booy xoolee dañuy nekk victime exploitation sexuelle te ñu si gën a bëri euh, ay jigéen la ñu doon ak ay ak ay maanaam tout tànk yoo xamante ne ay jigéen ñu ndaw lañ te bien vrai que amaan na ay góor mais ñu ci gën a gën a gën a nekk ay victime jigéen ñi la gën a doon maintenant si yooyu noonu exploitation yooyu noonu mun nañ si wax lii di prostitution mun nañ si wax lii di euh, traite des personnes maanaam traite trafic illicite de personnes bu nga xamante ni mooy si amaale beneen bi nekk à des fins yu nga xamante ni pour ñu sàkku leen euh, sexuellement wala tourisme sexuel bu ñuy wax te boo dee xool euh, bu ñu waxee la traite des personnes dafa nekk benn góom boo xamante ni àdduna bi yëpp dañ siy lëkkaloo muy ONUDC muy euh, lii di di Interpol muy ay kuréel yu nga xamante ne daal nekk nañ fi pour jëm ko xeex ndaxte buñ cay xeex nekkul rek comme nu ma ko waxee woon sànq benn question boo xamante ne benn dëkk rek la déedéet dañuy jëlee ñenn si yeneen dëkk andi leen si yeneen euh, benn dëkk wala sinon mu nekk tamit dëkk bu nga xamante ni moo fi nekk bu may joxe kaw exemple Sénégal gis nañ ni que lii nii di CEDEAO nga xamante libre circulation des biens et des personnes bu am doon na ñu nga xamante ni trafiquants yi jëm nañ ko utiliser pour mun a ñëw dugal fi ay jigéen dugal fi tamit ay ndaw pour ñëw exploiter leen à des fins sexuelles te ñoom ils sont euh, duñ nekk loo xamante ni ñoom dañ ko bëgg maanaam dañ leen contraindre dañ leen forcer pour ñu ñëw jéem ko def beneen bi nekk ay ndaw yu nga xamante ni ñooñu fii nii tamit juddoo fi yaroo fi ah ñoom tamit ñu gis seen waajur wala ñenn ñoo xamante ni xëy na dañ leen for wala ñoo xamante ni dañ leen ko dénk ñu ñëw contraindre leen waat maanaam pousse leen pour ñu ñëw ñu leen di sàkku. alors loolu moo tax mu mhm. nekk benn question boo ne bu am solo la boo xamante ni ah àdduna euh, yëpp dañ siy ñëw di si rawatina les forces de défense et sécurité dañ siy ñëw jéem a lëkkaloo. pour mhm. xool nan lañ koy lijjantee nan lañ koy jéem a saafarawee. Mhm. alors nan lañ mën a def yi tamit ngir mën a gérer victime yooyu lii nga xamante ne nag euh, léeg-léeg dañuy nekk en état de choc. waaw victime yooyu euh, ñu si bëri. Euh, dafa am benn appui psychologique bu nga xamante ne dañ koy soxla parce que tey jii nii nga ñëw ñu force la pour ñu sàkku la euh, sexuellement loolu dafa am ay traumatisme yu bëri yu nga xamante ne daf koy nar a yee maanaam daf koy andi loolu nag muy andi noonu nag non seulement réinsertion bu nga xamante ne dañ la koy def si si euh, si si si société bi dafay laaj liggéey bu am solo te liggéey boobu noonu ñu si gën a gën a am solo moom mooy ñu nga xamante ne mooy kër docteur ñoom ñoo si gën a am wàll bu gën a am solo maanaam waxtaan ak nit ki xool nan la koy suivre mën na nekk diir bu gudd ko mun a nekk diir bu gàtt dem daal ba waxtaan ak nit ki ba mu mun a euh, dépasser loolu noonu maanaam jéem a dindi problème bu nga xamante ni wala lu nga xamante ni forcé nañ ko ba ñu def ko ko te loolu noonu c' est des choses corporelles yi nga xamante ni certes pour mu daj dina xaw a jafe trop waaye euh, ko docteur yooyu noonu xarañ nañ xarañ boo xamante ni dinañ dem ba dindi loolu noonu. alors at gu nekk nag dañuy seetlu ne lu tollook ñeenti million euh, ci ay euh, doomu aadama ñoo xam ne ay victimes lañ ci àdduna wërngal këpp lay am lan moo waral tey jii muy gën a am doole. waaw luy luy waral loolu mooy xam nga trafiquants yi ñoom. dañuy nekk en avance tey bu ñu tegee lii nii di stratégie bi ni ñu jëm leen ñëw baare ñu jóge ci stratégie boobu noonu dem ci beneen te am na lu nga xamante ni événement wu internet internet doon na jumtukaay boo xamante ni ñoom dañoo dem ba maîtriser ko trop ba si lañ si ñëw adapté ba xool nan la ñuy def ba nekk en avance moo tax euh, loi bu nga xamante ni mooy loi deux mille cinq euh, zéro six du 10 mai 2005 relatif ak euh, lépp lu nga xamante ne mooy xeex lii di traite des personnes euh, jotoon nañ si woon bind maanaam loi boobu noonu comme que dafa xawoon obsolète tuuti jéemoon na ñëw xool en 2019 defoon benn daje bu mag boo xamante ni ñun bokkoon nañ si bokkoon na si ay magistrat bokkoon na si Interpol ak corps défense et de sécurité yëpp ñu nga xamante ni ñoom la ñu daje woon ñëw xool nan la ñuy càmbaraatee loi boobu noonu parce que loi boobu noonu boo ko xoolee rek si benn parenthèse boo xoolee daan yu ñuy daan dafa dañoo jàpp ne dafa ndawoon trop te am na daan yoo xam boo ko bëggee daan pour nga mën a tax ñeneen bañ ko def il faut mu sévère daan yooyu noonu moo ñu tolloog deux ans ba cinq ans si amande cinq cent mille ba deux millions maanaam victime yu nga xamante ñu ñooy subir loolu euh, ñuñ li seen bureau yi lu ñu leen yi daan dafa ndawoon trop loolu moo tax nag ñu demoon càmbar euh, loi boobu noonu. Mhm. bien vrai que am na kuréel boo xamante ni moo ñu fi buy travailler ak UNIDC buy travailler ak Nations Unies bu nga xamante ni ñoom ñoo ñu fi ah war a euh, muy cellule de lutte contre trafic illicite de euh, et la et des traite des personnes donc muy kuréel boo xamante ni daal pour loolu noonu lañ si war a liggéey. Mhm. donc moo tax bon xëy na loi boobu noonu bu nekkee dem na ba ñu dugalaat xëy na dina tax euh, tey jii nii trafiquants yi jéem a ñëw dellu ginnaaw. mais amaana. Mhm. ñun lu ñu jot rek mooy sensibilisation bi am na ci solo trop non seulement ci acteur u organisation de défense des restriction bi am na ci solo lool maanaam teg ay daan yoo xam ne kawe na trop lu weesu loolu tamit gën a sensibiliser kon yéen seen seen rajo wala seen télé. gouvernement bi def ci ay ay ay ay campagne ay spot publicitaire yu nga xamante ne dinañ tax euh, nit ñi jéem leen ñaax wax leen ne lii moom moo am lii nag konko am na jéem leen pour ñëw dénoncer ñu nga xamante ñooy ñoo nekk se guro la dafa am solo donc yooyu noonu daal nekk nay avancé yoo xamante ni jàpp nañ ne buñ ko defee dina tax lii gën a dellu ginnaaw. waaye ONG euh, Adda ci boppam lan la fas yéene def ngir mën a rek taxaw ndaw yi lay euh, nekk ay victimes nag ci exploitation sexuelle. waaw xam nga ñun euh, comme kuréel bu nga xamante dafa aar ak ak yelleef doomu aadama lu ñuy njëkk a def mooy suñu rôle de veille et d'alerte rôle boobu noonu moom mooy lan balaa dara di ñëw nga ñëw wax ni ah léeg-léeg lii moo ñu nara am conséquence yi moo nekk nii maanaam ñaax nit ñi sensibiliser leen au delà de sensibilisation nag leneen lu nga xamante ne moom mooy ces victimes là peut-être xool accompagnement juridique bi accompagnement bu nga xamante ne ah nañ ko mën a def loolu daal la ñu mën a yem waaye lu weesu loolu nag xëy na jéem a euh, def ay plaidoyer comme nuñ ko defoon ci loi bu nga xamante ni 2005 euh, 06 moo doon wax noonu ñu woo ñu ñu andi si suñu xalaat lu weesu loolu moom mooy jéem a def tout ba nga xamante ni les pouvoirs publics yi euh, les autorités gën leen ñaax ne léeg léeg lii la ñu war a def ak taxawaay bii lañu ñu war a def mhm. donc loolu rek la ñu mën a ñeneen ñu nga xamante ne dañ si war agir moom mooy comme lu ma këru docteur yi dañ si war a agir lu à ñoom nekk gouvernement bi mu nekkaale tamit ces organisations yi nga xamante ñooñu fi. Mhm. alors pour yow lañ mooy pousser ñenn ñi tamit ñuy def ti yu ñaaw yi de. waaw xam nga boo xoolee définition wu rek euh, traite des personnes loolu rek leeral na maanaam dafa am ñu nga xamante dañ koy def pour xaalis defuñu ko pour leneen lu dul xaalis pour am xaalis. dañuy jàpp ni xaalis bu gën a yomb moom mooy nga jël ay nit forcer leen pour ñu ñëw à des fins yu nga xamante ni moom mooy sexuel pour mun si am xaalis boo ma joxe woon sànq exemple si nasaraan mooy boo ma joxoon exemple si Kédougou xam nga dafa am zone bu nga xamante ni dañ fay chercher dañ fay seet lii di ay or di fa seet lii di yenn ressources yi dañuy wax ni ñenn ñi seen mentalité dañuy wax ni il faut ñu salté maanaam salté boobu noonu moom mooy tax ñu gën a gaaw a gis lii di ces moo tax Euh, nga gis ñeneen ñu nga xamante ne ay yeneen nationalité dañ fay ñëw andi ay ay ay ndaw bu leen fa andee nag ba bàyyi leen fa dañ leen di jàpp ni ñoom dañuy jàpp ne dañuy waroon ñëw transiter fii pour jël ay vol maanaam jël avion pour jéem a dem Europe wala jéem a dem euh, fii nii di États-Unis maintenant bu ñu demee nag ba feene ba egg fa dañuy confisquer ñoom seen passeport bu ñu ko confisquer nag contraindre leen pousse leen forcer leen forcer boobu noonu pour ñu mën a ñëw. tëdd ak ñee nga xamante ne ñoom ñooy wër ces euh, métaux-là du ñëpp nag du ñëpp maanaam bu ñu ko defee nag ba pare ñoom lu ñu si am mooy xaalis te du ñu joxe xaalis bu ndaw xaalis bu bari dañuy joxe yeneen yi tamit nga gis ni am na mooy ñi nga xamante ne dañu leen jëlee fii nii Sénégal muy ay sénégal yóbbu leen si ay dëkk nasaraan ñëw force leen pour ñuy def loolu ñu téye seen papier donc nekku rek Sénégal yeneen dëkk yëpp la comme fii nii tamit nga ñëw Dakar si banlieue bu nga wax noonu même si taux bi commencé na wàcc tuuti ñu nga xamante ne dañ leen di ñëw def leen loolu maanaam xaalis rek koppar rek lañ siy jéemul muy koppar bu nga xamante ne moom moo gën a gaaw a am ndax xaalis bu bëri lay doon tamit ñu ngi siy fàttaliku yenn histoire yu nga xamante ne amoon na jamono yu weesu seen rajo yi télé yi di si wax. Hmm. alors li jëm nag ci daan yi nga xamante ne euh, loi bi moom la prévoir euh, foog nga ne doy na. non doyul ndaxte moom laa doon jox exemple moo tax ma ne woon ñun bu nekkee fii nii à l'échelle euh, si xam nga dafa am ay convention yi nga xamante ni euh, si Sénégal daf ko signé ratifié ko lu weesu euh, convention yooyu noonu fii Sénégal suñu loi bu nga xamante ni moom mooy ñëw di càmbar loolu moom mooy la loi deux mille cinq zéro six bu nga xamante ne du mais mai 2005 bu relatif à la lutte contre la traite de personnes mais dañoo jàppoon ni 2019 boo ñu defoon daje boobu noonu dañoo jàppoon ni loi bi dafa sévèrul parce que daan boobu xëy na en deux mille cinq zéro six sévéroon na mais léegi nii sévérul parce que bu ñu waxee ne yow yaa ñëw contraindre ay ay jigéen wala ay ndaw euh, ba ñu nekk victime de ça ñoom yow bu ñuy teg la daan si deux ans wala cinq ans nga deux ans cinq ans bon euh, jàpp nañ ne dafa tuuti trop tuuti trop amende bu ñu lay def loo moom mooy cinq cent mille ba deux millions loolu tuuti na trop mm-hmm. par rapport ak victime bi lu muy suivre lu nga xamante ne daf koy topp si àddunaam yëpp moo tax nag boo ñu defoon daje boobu noonu ak ay kuréel yu nga xamante ne yafe Union européenne Interpol moo ñu si woon lii di magistrat ñooñu fa woon euh, gendarme ñooñu fa woon police ñooñu fa woon douanier maanaam corps yëpp yu nga xamante ne daal ñoom ñoo ñëw war a liggéey si loolu noon maanaam ñoom ñoo koy ñëw di ko di ko lutter ñoom ñooñu fa woon. mais dañoo jàppoon ni jour boobu noon boo ñu fa daje woon nekkul rek benn fan lu tolloog une semaine la woon mais ñoom organisation défense des droits de l'homme benn fan rek lañ fa defoon si benn fan boobu noonu daal dañ leen wax ni euh, daan yi dafa tuuti trop mhm. te tey pour nga mun a ñëw gën a tax kuy def yooyu noonu nga mun a tax ba nga xamante ne dootul def ci yooyu il faut nga teg ko daan bu gën a sévère te daan bu gën a sévère ah prison à vie bokk na si. Mhm. mu nekk ñu tëj la plus de trente ans wala cinquante ans yooyu noonu yëpp bokk na si. te xaalis bi ñu waxoon ci amaan bi dafa tuuti trop loolu la ñu waxoon te xaalis sax mënul fay wala rendre a ces victimes là lu nga xamante ne ñooy ko subir ba ma doon joxee benn exemple am na benn victime boo xamante ni macha allah léegi ne dem na ba yooyu noonu génn ci moom euh, ba mu fàtte ko ba réinséré na ba moo ñu liggéey ci benn société bu mag donc pour wax la ni rek nii am na ay pas yoo xamante ne ñoo ngi koy jéem a def ci Sénégal pour jéem a dépasser loolu. waaw si mhm. yenn dëkk yu bari ñooy nekk en avance. Mhm. bëri na ay victimes yi nga xamante ne dañ leen di menacer ñeen ñi ñu leen di euh, dóor di leen xoqatal euh, waaye psychose boobu lii euh, lan la mën a jur ci nit ki. mën na jur lu bëri xam nga dafa nekk loo xamante ne dafa lay topp à vie tey bu fekkee ni xam nga lu gën a bon moom mooy yow nga nekk victime ba pare nga ñëw toog ci sa ci sa ci sa coin maanaam doo mën a ñëw fësal loolu. ñenn ñi sax dañoo jàpp ni moo tax ma sensibilisation jaar seen télé yi seen rajo te moo gën a am solo ces organisations muy cellule bu ma la wax ni kuréel bu mag bu ma la wax ni moom mooy lutter lool war na jël moyen qu'il faut dem ci seen tele yi ñëw ba ci mi effet jox leen xaalis nga xamante ñoo leen di déglu pour ñëw sensibiliser par rapport à ça parce que lu tax sensibilisation am solo tey ku nga xamante ni dafa nekk victime très tôt mu nekk xale mu nekk victime de ces exploitations là bu fekkee ni demul ñëw am courage dem boole ji loolu bu ko dencee dafay law ci moom à vie te yàq dafay yàq àdduna maintenant nag pour géem a dindi si loolu il faut ñu gën a sensibiliser ñu gën a yeete mhm. mais lu muy yàq moo gën a bëri xam nga lu yàq sa àdduna moom ça veut tout dire mhm. ça veut tout dire donc euh, nekk na benn question wala benn problématique boo xamante ni tey je pense que waru nekk bésu mbégte wala fête mais dëkk bës la boo xamante ni war nañu xoolaat loi bu ma wax ni moo ñuy Euh, dormir si si tiroir yi ba léegi ñu teg ko xool nan lañ koy modifier xool tamit kuréel yi wala télé yeeg rajo yi nan la ñuy ñëwee def des moyens si si ñoom pour ñu mun a gën a sensibiliser impliquer toute la population muy bàjjenu gox ñi muy chef de quartier muy ñëpp ñu nga xamante ni daal am nañ si seen wàll. Mm-hmm. Adama nga jërëjëf may fàttali rek ne yow yaa njiitu ONG action wu droits humains ak amitié di ADHA ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. yéen la ñuy jaajëfal di rafetlu taxawaay bi ak liggéey bi soxna si Awa. bi ak liggéey bi soxna si Awa. bi ak liggéey